acca salaamaaleykum mbokk ami internet univers info ak bi promédia comme ni leen ko doon defalee ci actualité yi nga xamante ni moom mooy xew ci Sénégal gis ngeen campagne yi toppal nañ leen caravane yi gis nañ leen tamit campagne yi toppal nañ leen yenn discours yi nga xamante ni yenn ci leader politique yi nga xamante ñoom ñoo ngànkoon tey bés bii ñoom ñëpp ñu ci bëri ah pour bañ a wax ñëpp ndax tamit topp ñu woon ñëpp mais ñu ci bëri si ñi nga xamante ne ay leader lañ dugal nañ leen image yi nga xamante ni ñoom moom lañ doon def comme Euh, campagne moom lañ doon annoncé pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy askanu Sénégal mën leen jox bopp tey nag on est le 17 euh, novembre 2024 fii nga xamante ne moom mooy ci parcelle Assainies fi nga xamante ne fii la leaderu takku wàllu di Amadou Ba nekk tête de tey war a voté fii nga xamante ne moom mooy ci Parcelles Assainies liñ fi nemmeekum nag biñ fi yegg seeg léegi mooy lépp mu ngi dox. ci jàmm lépp mu ngi jaar yoon gis na nañu ni sénégalais yi ñu ngi génn nànk-nànk mais ñu ci ëpp ay jeunes lañu ñu ci ëpp aussi tamit ay pa ak ay maire lañu xëy na fi ak ci kanam tuuti incha allah ki nga xamante ne moom mooy leader boobu di Amadou Ba moom it war na fi yegg si def li nga xamante ne moom mooy devoir civique am ci euh, bureau de vote numéro 600. voilà bureau de vote numéro 6 ni ngeen koy toppalee incha allah après tamit dinañ fi fi jógee dinañ leen ne ay candidat la ñoom it nekk fi nga xamante yooyu yëpp tamit affluence la yoo xamante ni Sénégalais koy xaar yooyu yëpp ay ay la yoo xamante ni ah, askan bi dañ koy xaar xool ñoom nan la ñu nar a defee li nga xamante ni moom mooy seen vote xool li nga xamante ni ñoom war nañu ko def pour ah, matal li nga xamante ni moom mooy seen devoir mais daal li nga xamante moom la ñu nemmeeku fii nga xamante moom mooy ci Parcelles Assainies lépp mu ngi jaar yoon gis ngeen ko nii ñoom ñëpp ñu ngi def en ku nekk taxaw bureau de votam bi nga xamante foofu la war a voté ah ki nga xamante moom ah mooy Amadou Ba ndax tamit leader la tamit dañu koy xaar ndax boo xoolee bokkoon na ci li nga xamante moom mooy euh, présidentielle yi nga xamante moom la génn te mu nekkoon sax deuxième ah kon tey euh, bu ñëwee ci élection législative yi nga xamante ni moom la ñu war a def kon àdduna da koy xaar yi aussi dañu koy xaar fii ak ci kanam tuuti yi ñu ngi ñuy xamal ni war na fi yegg si ndax tamit nee ñu du du du du yéex a ñëw par rapport ak présidentielle yi mais tamit gis nañu ñenn ci leader yi nga xamante ni def nañ seen devoir civique ba pare ku ci mel ne président Ousmane Sonko nekk foofu nga xamante ni moom mooy ca Ziguinchor ah gis nañu ko bi mu defee li nga xamante ni moom mooy euh, devoir civique def na tamit benn déclaration mu ngi ci wax nii Euh, mu ngi woo sénégalais yëpp mi ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni tey war nañu def seen euh, vote tànn seen seen candidat mais ñu def ko ci yar ñu def ko ci tegal ñu teg ko ci dans les règles de l'art mais aussi yokk na ci ni moom am na yaakaar ak ximimtif que ni bu résultat yi génnee moom dina gagné te tamit mun na lañ ko ko nangul ndax tamit euh, ñoom ñëpp tey ñoom ñoo bokk li nga xamante ni moom la ñu bëgg ñoom ñëpp li nga xamante ni tey moom la moom moom moom la Sénégal woote tey ji ndax tey ñoom dañuy dagaan li nga xamante ni kaddu askan bi kaddu sénégalais kon dañu koy nangul waaw bu ko waxee <laughs> xëy na am na fu mu ko teg mais tamit ñeneen ñi nga xamante moom mooy ay naataangoo euh, candidat am ñoom bu ñu defee seen déclaration am nañu yaakaar que ni dinañu ci loolu ñoom it wax ni ñoom it incha allah <laughs> si tout va bien ñoom it dinañu gagné mais ak lu ci mënti am rek ñun ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi incha allah dinañu topp loolu du début à la fin ndax bu ngeen xoolee ci. fajar ba léegi ñu ngi sur le terrain bu ñu jógee fii nga xamante ne moom mooy ci centre bi war nañu dem ci centre Barthélémy war nañu dem ci centre Abbas Fall war nañu dem tamit ci centre ki nga xamante ni moom mooy Bougane ñoom ñëpp ñi nga xamante ni daal Euh, ay ay leader lañ mais aussi ay candidat la noonu yoo xamante ni sénégalais dañ leen di xaar rawatina tamit diaspora bi ndax tamit am na ñoo xamante ni tey à travers suñu euh, direct yi à travers suñu image la ñu mën a xamee li nga xamante ni moom mooy am fii ci Sénégal ndax tamit ñëpp dañu koy xaar kon fii ak kanam incha allah ñu toppal leen yooyu nga xamante ne ay candidat lañ te war a def seen devoir civique mais nag duñ ci duñ ci yam ndax dañoo bokk ak direct bi ki nga xamante ne moom mooy suñu naataango nekk foofu ca bi promédia ñu koy wax waagaan suñu directeur balaa mu dugg ci kàddu gi dañ koy nuyu rek daa jëfal ko mais aussi félicité ko ci liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy def waagaan ñu ngi lay nuyu. amal ah, ziar naa lan maa ngi bëgg ñëpp nuyu waa waa Bipro waa Unive aussi rafet rafetlu aussi lépp kon a vie aussi aussi parce que fii moom lépp lépp nice na ñëpp a ngi voté ñëpp a ngi ñëw dugg voté def seen droit civique daal. Hmm. comme comme comme comme ni ñu ko waxee tout à l'heure mooy biñ fi yegg seeg léegi gis ne nemmeeku wuñ fi lenn loo xamante ni lu lu lu négatif la mooy lépp mu ngi jaar ci yoon mm. tout ça passe très bien gis nga bureau bi ubbi na à temps il est presque 9 heures mm. ndax il est 8 heures passé de quelques minutes combien il est il est il est 9h16 voilà il est 9h16 xam nga lépp mu ngi jaar ci yoon mais nag comme li nga xamante ne moom la ñu gis euh, la fois passée ci présidentielle yi dafa am wuute bu bari ci li nga xamante ne moom mooy législatif yi ndax boobu il y avait une foule une mais aujourd'hui il y a xaw ma nag le le le pourquoi. il se ci kanam incha allah ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a voté dinañu génn ndax tamit d' accord da xam nga dafa am ñu mel ni man ak Doudou ñoom lu dul nelaw topp ñu ko ah. mais nag ah, lii lii devoir la boo xamante ni ku nekk war na ko mun a def lii droit la boo xamante ni ku nekk war na mun a surtout nga am sa carte parce que tamit am na ci ñoo xamante ni judd nañu toll nu ne voilà. chaque citoyen daal. à le à le devoir de voter. ah oui de choisir. Mhm. lii nag élection législative la. Mhm. waa mhm. du présidentiel souvent nag avec les candidats on entend tout. su ma leen falee tant tant tant tant tant mais loolu yëpp amu kii. waaw ñun ñun daal nañ fexe daal am. une assemblée boo xam ne duñ fa nekk di xuloo di ŋaayoo comme bii passé. waaw nañ taxawal askan bi aussi. comme c'est loolu c'est un choix du peuple nag na peuple bi aussi xool ñoo xam ne yaakaar nañ ne ñoom suñu demee. on aura tout. parce que loolu mooy l'essentiel. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est très important ci euh, loolu nga xamante ne wax nga ko salle bii nga xamante ne moom la ñu jàkkaar fii la Amadou Ba war a voté waaw fii mooy bureau 6 ndax euh, bu ngeen xoolee keroog euh, ci présidentielle yi ñooñu lañ ko couvrir woon fii on était la fii la ñëw def li nga xamante ne moom mooy devoir civique am ah, def ko comme tamit ni ko sénégalais yi di defee comme ñi nga xamante ni ñoom ñëpp am nañu droit wu defee ko noonu moom it noonu la ko defee ñëw na sañse comme ñëpp ñëw na. Euh, dugg parce que ñoom duñ leen permettre sax ñuy ran ndax buñ leen di permettre ay affaire dara ran mën na dem ba si indi ay bouchon yoo xamante ni waaw du ko jar te fii tey laaj ñu fi loolu boo xoolee ñi nga xamante ni dañuy voté si ñëpp kenn sañu fi ñëw sol benn yére wala boog benn mm. t-shirt boo xamante ni sa leader la non non loolu c'est ah, interdit kon ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy déglu vidéo bi di ko seetaan nañu bàyyi xel ci loolu ndax am na ci ñoo xamante ne ñoo mel ni amaat xamuñu exactement nan la ñu war a mun a voter nan la ñuy voter mm. donc c'est très important tamit yooyu ñu ciy ñëw mais daal li nga xamante ni gis nañu ko fii lépp mu ngi jaar ci yoon ñi nga xamante ne ay mag lañ ak ay pa comme troisième âge waaw gars yi ñu leen di jàppale ah, bu ñu ñëwee du ñu rang dugg ci li nga xamante ne moom mooy seen bureau de vote def seen devoir citoyen après replié wu seen kër toog xaar li nga xamante ne moom mooy résultat yi kon ñu ciy jaajëfal ñooñu ñëpp ne ñoom ñooy suñu mbokk taskatu xibaar yi ndax boo xoolee ñu ci bëri toppoon nañu ci li nga xamante ni moom mooy ah, caravane yi ba ci campagne yi dugg nañu fu ne ci Sénégal ah, ñu leen di masaw di leen félicité bu baax ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi nga xamante def nañu ko ndax tamit Vraiment. Surtout la presse en ligne. Vraiment. Parce que les, les youtubeurs aussi, souvent, on les critique, mais lu fi xew aussi ñoom ñoo ko wëndal de. Mhm. bravo à ñoom daal. Mhm. Mhm. kon kon dañ leen di jaajëfal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, presse bi euh, mag ak ndaw góor ak jigéen ci organe bu mu mënti doon rek parce que si bokk li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jaajëfal nunu leen te di wax ñi nga xamante ñoom ñooy internet yi feeg ci kanam incha allah bu Amadou Ba yegsee léegi dinañ leen jëlal arrivé bi ak ñi nga xamante ni noonu la nar a defee li nga xamante ni moom mooy votom kon sur ça dañ leen di ñaanat encore une fois que ngeen partagé li nga xamante ni moom mooy vidéo yokk li nga xamante ne moom mooy abonnement bi pour mën ñu dooleel ñu nit ñu sacrifié wu journée bi li mu naara gudu gudu dinañ ko jaayante ngir mën leen toppal li nga xamante ni moom mooy vote législatif pour 2024 bi nga xamante moom la nekk kon loolu rek lañ leen di ñaan ñun incha allah fii ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak ci li nga xamante moom mooy li xew